wala mu ngi waaj a sifflé ku jë premier combat poids lourd Famara ak Toubacouta Famara Bassoul moo la féete càmmoñ Toubacouta moo féete ndijoor moo la wan ginnaaw Toubacouta léemu na Famara Bassoul Toubacouta ndaysaan ñu ngi noonu Famara Toubacouta Famara moo la féete ndijoor Toubacouta moo la féete càmmoñ Famara jiital tànk càmmoñ Toubacouta jiital tànk càmmoñ Toubacouta nekk njool mu sëgg Famara nekk ku diggu dëemu Famara sa ndeysaan lii la la Bambara ak Toubacouta Bambara Bassoul Toubacouta ndeysaan Bambara Bassoul Toubacouta ñu ngi lewaatoo. ñu doon daw na jël ko. Famara bañ na. Cheikh Sey. Toubacouta reculé. Abdou Thiam. Galas daw na jëli ko. Toubacouta Famara Toubacouta Famara Toubacouta ñu ngi lewaatoo Famara Toubacouta ndeysaan daaw na jël ko Famara jël na Toubacouta Toubacouta tëru ko dara xewagul daaw na jël ko Famara Toubacouta wër na ko ndomba Toubacouta wër na ko ndomba se puede dar. ndaysaan Fambuda ak Toubacouta Toubacouta wër na ko ndomba Fambuda taba Toubacouta yëkkati bañ na juk na ndaysaan Fambuda baasul ak Toubacouta Toubacouta nga koy kal buddi na day génn saaku yi wër na ko ndombo dara xewagul day génn saaku yi daan na Toubacouta daan daan na Famara